Fall jégalu de. yëkkati suñu kàddu ci nuyu Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam li tawlaati jamiihi rahimahullahu taala ñun kàddu yi jëm ñun jëmale ci mboolem mbokku jullit yi ci réew mi yëpp ak mboolem mbokku taalibe yi moom sañu digg ak sañ la ci ndigalu sëriñ bi ginnaaw bu ñu yëpp di ñaan ñëpp di dellu si waat di dellu ci alxuraan li ñu santaane rek wala nag loolu nag comme touché il ne la xaw fi wala jiw wax ba naq si ne la boole wala touché ba xam daal ba bashir saabiriin allazina iza asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ulaayika alayhim salawaatu min rabbihim wa rahma wa ulaayika hum kon xew-xew bi xam ne moo xew ci biir ak ci benn ci réew yi ñu jëm mooy li ñuy wax zahira zahira moo li ngeen ci loo xam ne lu xew la ñu dugg ci biir jàll di dem biti réew ngir sàkku ji alal dundu leen seen njaboot ak liñ ba xam ne li ci xew lépp xew xew ci muy jéey ju rëy te alxuraan benn bakkan faatu lu diis na kon sëñ bi de la sañi ay taalibe bi képp lislaam da ko santoon ngeen di sàkko ndax fa inna nafsan lan tamuuta xataa tastakmila rizqaha benn bakkan du faatu lu dul nekk na ko sëñ kon li ñuy wax rek tukki bu yokk war sa da koy kon sëriñ bi nee mu mi ngi ñaaxaat tamit yëpp di leebiru mbokki jullitam yëpp ak mbokki réew mi ñoo xam ne yoon wi ñu jëm jëm kat du aw xam nañ ne rek jamono xat na naqari na waaye loolu itam nañ xam ne suñ borom moo xoote ci àdduna ndax bu réew mi képp àdduna sépp moom lañ fañ jëm muy réew tubaab yooyu jëm ñoo bëri jaaxle ñoom ndax ñoom àdduna mooy seen diine. li ñuy wax koom-koom mooy seen lépp ñun nag ñoo leen gëne wala ñun la suñu borom defee taw fex ñu gëm yàlla xam nañ gëm nañ leneen xam ne dogalu yàlla am na ñoom ku ci da ngay xam ñun suñu cër ab jullit dafa war a muñ te xam ne suñu borom ñu ko teg nattu bi moo xam ne tax mu teg ko waxtu ko jeexle mu jeex doonte lay fàggu nag mënta ñàkk ci dundu doomu aadama waaye nañ xam ne yàlla lu bind ci doomu aadama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 fa la wër fa nekk booy dem nga demee ci anam gu leer goo xam ne du bokk lii ndax eh, gaal yi ñuy jaar dem du lu doomu aadama war a dugg ngir tukki rawatina ci fu sore noonu kon loolu ku ko def itam xaru la te bëgg ko xaru ndax xaru kat diis na kenn yéenewu ko sa mbokkum jullit ndax ku ci faatu sawara nga jëm ndax ku rey ku sa bopp te tey ko sawara nga jëm kon walaatul xóob bi aydikum ila tahlukati kon loolu dara jiituwu ko ci lu mel noonu